بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi dellu si waat nañ di sant sunu boroom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee dot ci waamem xéewal yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si waat nañ geneen yoon ci doon keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam mbokk yi xam ngeen ni ay góor a gi noonu yu màgg ak ay jigéen yoo xam ni sunu borom moo leen tànnal boppam ngir ñu war a nekk saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñooñee day xeet yi ñoo ci gën a baax ay xol ñoo ci gën a jub ñoo ci gën a dëggu ñoo ci gën a sell ay jëf ñoom sax nag dañoo amoon ngërëmal seen borom doog cee jógee radiyallahu anhum wa radu an ñii day laqad kaana fi qasfihim ibra foog di waxtaanee seen dund day ak waaroon gi ceeg fàttaliku bokk na ci li gën a mën a namm xol rawatina xol ku gëm yàlla mooy di ko fàttali ña nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ci baax ak fu mu mën ci toll rek su gestoo xool ñooñu dafay xeeb boppam te loolu wér la loolu ahlu siyar xam nañ ko ñi nga xam ne ñooy topp ahlu siyar ci seeni taraajum tamit xam nañ ko ki nga xamante ni dafay xool ci kim raw kooku du avancé du du dem ca kanam la ko waral mooy saa bu xoolee ne diw maa ko raw rek dafay yomb mu commencé tendeefalu di dox ndànk di tenkam tenkam yi waaye saa boo xam ne yaa ngay xool ca kala raw ca kanam loolu dafay nekk courage bu mu lay dolli day tax nga gën a góorgóorlu day tax nga gën a farlu te xam ngeen ne niitukaay bi gën a wér te gën a wóor mooy niitu ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ak taabiun yaak taabiu taabiihim ila yawm alqiyama bu ñu fàttalikoo sunu bind bi weesu ñu ngi nekkoon ci dund soxna su màgg ci soxna yi nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ummul fadl ummul fadl wal fadail Lubaabata bint al-Xaaris nga xam ne ummul fadl mooy yaayi Abdullah ibn Abbas di soxna sa Abbas baayu yonent bi di bàjjan ci Xaalid ibn al-Walid di mag wala rakk ci Maymuna soxna yonent bi waxoon naa leen mbir yi nga xamante ni Maymuna wala ummul fadl dajal na ko ci ay ngëneel te it bàjjan la woon ci Xaalid ibn al-Walid waxoon naa leen ni umul fadl moom moo jur abdullah ibn abbas moo tax suñu bind tay bi dana xaw a wàcc tuuti man haj bañ tëroon ndax danoo jàppale dañuy tàmbale ci aboubacar omar ak osman ak ali suñ paree dem ci kibaaru saxaaba suñ paree doog a ñëw ci sigaaru saxaaba ndax magi saxaaba yi tàmbale ca ñoom doog a ñëw ci goney saxaaba yi loolaa moo nekkoon suñu doxalin la tax ñu wàcc ko tey nag mooy ummul fadl mi ñu doon waxtaanee ci bind bii weesu moo jur abdullah ibn abbas kon dana méngoo lool te rafet ak mbind yi nga xam ni jot nañ koo wax ngir ak dëppoo am ci ay mbir yu bari yu tax ma sëpp man hëj ba ma tëloon daal di jël dundu abdullah ibn abbas te fekk abdullah ibn abbas ci gone yi la bokk lan moo waral ma def loolu li ko waral bi ci njëkk mooy abdullah ibn abbas umul fadl mi ñuy waxtaanee mooy yaayam te junj naa ak lépp ci abdullah ibn abbas ak ni ko yaayam amee kon bu ñu ko indee fii dafay méngoo lool ñaareel mooy abdullah ibn abbas ci goney saxaaba yi la bokk waaye kabirul qadri inda allah li annahu min al ulama ndeke nit kat mën naa nekk gone ba noppi nekk mag loolu la wolof yi naan bopp dana mag borom wala nopp day mag borom ndax nit ki dana egg ci ay daraja yoo xamante ni ay atam yeggu fa te fekk loolu xam-xam moo ko fa yóbbee moo tax imaamu Malik boo ko musaana wax ñaata at nga am da naan loolu am solo laajal leneen ah wala saafi ay bopp moo ne ko waaw ñaataat nga am danaan laajal leneen loolu jarut laaj nga ni ko lu tax mu ne sama sëriñ ba Malick boo ko mosaan laaj ñaataat nga am mu ne jaru ko ay at moom am solo borom xam-xam yi ne amaan na jamono bañ koy laaj loolu ay atam bëriwul te doomu aadama yi dañoo gaaw a xeebaat ci ay at fekk mbir mi du loolu waaye mbir mi nit ki mën naa gën a néew ay at fekk dund na loo xam ni borom juróom-ñett fukki at dund ko kon Abdullah ibn Abbas bu ñuy lim dañ koy lim ci goney saxaaba yi waaye bu xam-xam yettee dañ koy lim lim kibaari saxaaba ndax Aboubacar ak Omar ñoom surtout Omar ibn al-Khattab ala wajhi al-xusuus moom dafa jàppee woon Abdullah ibn Abbas ci mag ñi la koy firndeel mooy bu musaan a am jafe-jafe day waa Abdullah ibn Abbas ni ko kaay ñu diisoo ci fekk gone bu ndaw la ndax xam ngeen Abdullah ibn Abbas bi yent bi faatu mi nga am fukki at ak ñett ku yent bi faatu bàyyi la ba nga am fukki at ak ñett xam nga ni kon bu la Omar dee woo naan la kaay ñu diisoo la muy wane mooy say at yeggagul fenn beneen bi tax ñu tànnaat ko mooy xam ngeen sunu dars bii paase ak ba ko jiitu ci tafsirul quran al azim ñi ngi nekkoon ci qissatu luqman te gis ngeen luqman al hakim ak tawfiq yi ko suñu borom defal ak doom ji ko yàlla dénkoon ak njàngale yi ci am malgré que kooka nekk na mag te fekk gone ya la gone la kon loola suñ jëlee sunu dars tey mu def ko kenn ca gone yi saxaaba ya laa sakka ni ak méngoo day am foofu loolu nag wal fadlu min allah subhanahu kon tey ñu ngi ci abdullah ibni abbas nga xam ni moom la yonent bi waxoon allahuma faqihhu fi ddin wa allimhu tawil suñu borom kii de yàlla nañ ko déggloo diine ah te xam ah déggloo ko fiq yàlla nañ ko déggloo diine te xamal ko firim alquran subhanallah ñaan du rëy yi bokk gis nga ñaan yii saxaaba yi dañ daan daw ay xil ngir yonent bi defal leen ko Abdullah ibn Abbas ni nar a waxtaanee dundam nee na fekkee na ab néew ñu di ko jullee yonent bi di ñaan di ñaan di ñaan ba man damaa mujj ma nag kii daa war a jug nekk man man ma dee tëdd foofu ndax ma moom ñaan yi ndax mu ne la yonent bi doon ñaan ni mu ko yéenee alayhi salaatu wasalaam mu ne kii tëdd moo war a jug mu nekk man man ma dee ma tëdd ndax rek man maay moom ñaan yi kon su boobaa ndax ñaanu yonent saa salaam xam yéen mbokk yi lu koor la kon tey ñoo ngi waxtaanee Abdullahi ibn Abbas waaye mbokk yi ñoo ngi waxtaanee xam-xam nag Abdullahi ibn Abbas bés ko tuddee rek laa sakkale tudd nañ xam-xam te mbokk yi xam ngeen ni xam-xam mooy li gën a rëy loo xam ne doomu aadama am na ko ci may yàlla yi subhanahu wa taala qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun suñu borom ni bi fadlillah ngëneel yi yàlla yi defal te ngëneel yi xam-xama ca jiitu wa rahmati yi ak yërmande yi yàlla di defal yërmande yi xam-xama ci jiitu mu ni fal yafraxu kuy kontaan di ndamoo ko sant yàlla te li ma defal mu ni tiitaroon loolu huwa xayru mimma yajmaun xam-xam moo gën fuuf li ñuy dajale ci alal mbokk yi ndax kat xam-xam dafay nuróo méngoog wax ja Ali ibn Abi Talib waxoon ndongam la Kumayl muy wax ju am solo mu ni ko Kumayl ihfad ma aqulu lak mu ni ko Kumayl mu ni naam mu ni ko Kumayl déglul li may wax bu baax Kumayl di ko déglu mu ni ko annaasu talatatun gis nga doomu aadama yi ngay seen ci kaw suuf mu ni nit ñi ñett ñett nit lañ nee na ko fa aalimun rabbaani am na waa joo xam ne dafa jàng ba njàng mi jëriñ mu nekk borom xam-xam ànd ak ak ragal yàlla mu toll koo xam ni nekk na rabbaani te loolu suñu borom doon digle mooy kunu rabbaaniyiina bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun nee na kenn ki mooy kooku keneen ki mooy aalimun mutaallim mooy koo xam ni borom xam-xam la waaye ba léegi mi ngi continuer jàng rek xëy na àggagul te dara jële mooy deuxième position bi nee na ala sabili najaat moom mi ngi wër fu mu jaar ba mucc moom boppam la tal donte ma ngay jëriñ ñetteel mu ni ko wa hamajun ruaatun atbaau kulli naayiq nee na am na gaa yoo xamante nii ñoom ah li wala fi tuddee am am xutumbal ay xutumbal lañ xutumbal mooy waa joo xam ni moom daanaka xamut dara dara dara moom daal fu fu tooy mu dal ku ne ñeew mu gestu ku woote mu wuy ji kum seen ni mooy waaja loolu mooy xutubal mu ni am na koo xam ne ab xutubal la asbaa kulli naayiq moom ku yuuxu rek bu topp ci ginnaawam ne waajaango parce que daa jàngut mu ne yamiluuna maa kulli riixin ngelaw lu ëpp rek da leen di yóbbaale parce que boo jàngee nga xam da ngay nekk wu doj gis nga melokaan woowu ñu tudd dëgër bopp baaxut waaye nag ñàkk baax gi laysa alal itlaaq dëgër bopp baaxut waaye nag ñàkk gee baax laysa alal itlaaq nekkul dañ leen baaxut rek mu dem ahan kay sa ngëm yàlla nga dëgër ci bopp sa pas-pas bi nga dëgër ci bopp sa iman bi nga dëgër ci bopp loolu kay lu baax la ak xam ni yaa nekk ci dëgg nga tax ci dëgër ci bopp waaw kay loolu baax na waaye nag laysa mahmudan alal itlaq wa laysa mazmuman alal itlaq kazalik nee na lam yastabiu bi nuur al ilm ñooñu fexeel buñ sa bopp parce que ñoom ñiitu wuñ ci ñiitalu xam-xam ñoom xam-xam ñiitalu leen ah mu ni walam yaljau ila ruknin wasiq ñoom téyewuñ ci oto bu dëgër xam nga waa ji ngay xëcc te fekk jafanduwut ci dara mu fekk sa la moo gën a yomb ki ngay xëcc fekk mi ngi topp ci benn poto bu dëgër wala bant bu dëgër kooku da nga xëcc ba sonn te du ñëw lu tax parce que fi mu teg ay tànkam moo dëgër allahu akbar wax ju lii ta ngi ni yoo xamante ni yëpp sabu ma iddahab ali di ko wax kumayl mu ni ko al ilmu xayrun min al maal xamal ni xam-xam moo gën alal lu tax mu ni fal ilmu yaxrusu xam-xam da lay garder wa anta taxrusul maal te yaay garde alal ji allahu akbar mbokk yi kii dafa am xam-xam kii am alal kii moo moom xam-xamam kii moo moom alalam borom alal ji mooy jekk-jekkalal alal ji di ko sàmm di ko wat di ko garde waaye yow xam-xam dee lay jekkal di la garde di la wat te loolu mooy li wér nag xam-xam moo lay garde moo lay jox valeur moo lay yëkkati foo yeggut mooy dem ba nga xam ne yow wii kat fii mu la yeggal yeggoo fa waaye xam-xam rek la fa yóbbu mu ne yadku alma al ilmu yadku ala al amal wal maalu yunqisuhu nafaqa la hawla wala quwata illa billah mbokk yi ñaari ngi ñu taxaw kenn ki dafa am alal kenn ki am xam-xam dama ni li borom xam-xam di def ci xam-xamam borom alal bu ko def ci alalam nga ñàkk alal dama ni li borom xam-xam di def ci alalam ci ci xam-xamam borom alal bu ko def ci alalam nga jeexal yow suba yaa ngi jàngale bëccëg yaa ngi jàngale ngoon yaa ngi jàngale te liy jàngale lépp ci bopp lay génn ngay dem te lu dem di dellu tubaab loolu bu ko borom alal ji defoon day jeexal sàkk ngay joxe xam-xam muy joxe alal ngay joxe léegi tey moom day jeexal te yow da ngay gën a yokk rek ndax xam-xam suñu borom moo ci def boobu baraka mooy loo gën a joxe rek day gën di dellu si di gën a yokk donte alal dina def noonu waaye nag boo ko yàggee da ngay ñàkk kat day jeex tàkk gis nga moo tax mu ne ko ndeysaan ñu doon am alal tey dee nañ fàtte nañ leen waaye mu ni am na ay boromi xam-xam yoo xam ni wala am na boromi alal yoo xam ne ñu ngi dund ba tey waaye kenn xamuleen waaye am na boromi xam-xam yoo xam ni faatu nañ ca daawaati géej ga waaye ñi ngi mel ni ñi ngi dund ba tey boo tuddee seeni tur ndax dafa mel ni ñaan nga yàlla dafa ñun taali biram leen defalal mooy wajaal lee lisaana sidqin fil axirin mooy tudd ko rafet nga xam ni saa buñ la tuddee da ngay beesaat sax xam ngeen ni aima yu yàgg ya saxaaba ya abu hurayra ñoom abu darda abu darda ñoom tey boo leen tuddee dañuy mel ni nit ñi ci démb fekk loolu xam-xam moo leen ko def kon laa sakka ni waxtaanee dundu abdullah ibn abbas mooy waxtaanee xam-xam mbokk yi xam ngeen ni ci bind bi weesu waxoon naa ay ngëneel yu bari jëm ci ummul fadl waaye ngëneel yooyu su fekkee dars yi ni ngi nuy jariñ jigéen ñaa ko moomoon bu ko defee jigéen ñi foofu lay jaaree muy xool nan lay def ba mën a am doom bu baax te loolu moo war a nekk mbiru ci kenn ku ne ci soxla yi mooy am doom joo xam ne aalimun rabbaani lay doon loolu nag liggéey la du caage ni bëgg am doom rek am doom rek dee déedéet ummul fadl dafa dajale ci ay fadail ak tawfiq suñu borom lu tax mu jur Abdullah ibn Abbas ku def ni moom it suñu borom may la lu mel na mu ko mayoon xam naa bi ndef tey bi nag mi ngi jëm ci kii nga xamante ni mooy Abdullah ibn Abbas waaye nag ci ñun la jëm si la jëm ñun si xaar yi ñun ndaw ñi nga xam xam ngeen ne Abdullah ibn Abbas gone la woon lool waaye suñu borom mi ngi ko terelee xam-xam lii nag mbokk yi bind bi dafa war a defaat ci ñun ak dolleekuwaat yëg-yëg ci songaat pour sàkku xam-xam mbokk yi xoolal xam-xam martaba ci ko suñu borom teg شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط mbokk yi xoolal yàlla subhanahu wa taala muy wut seene yàlla mooy wut seene yàlla subhanahu wa taala moom mooy wut seene mu ni shahida allahu yàlla seede na ni annahu laa ilaha illa hu amul kenn kuñ war a jaamu su dëgg ku dul suñ borom suñu borom seede na ko waaye faw mu wut seede moom it mu ne wal malaikatu malaaka yi seede nañ ko waaye mbokk yi xoolal doomu aadama yëpp kenn la ci yàlla tànn pour mu seede muy waxulul ilm borom xam-xam yi loolu loolu mbokk yi martaba ju kawe la muy bindéef yëpp bi suñu borom seedee ba nopp deuxième position dafa jël malaaka yi ñu seede troisième position yi mu seet ci nit ñi tànn ak borom xam-xam mooy ku kuy borom xam-xam rek moo tax al allaama ibn al qayim rahimahullah ci téeréem bu am solo boobu mu tuddee miftaaxu daari saada ah tudd na fa lu mat téeméer ak fanweeri tomb yoo xam ni benn bu ci nekk day wax ci beneen xam-xam boo ca delloo ñu ngi wax ni kon bu yàlla subhanahu wa taala tànnee aw ab nit ci biir nit ñi biiral ko mag ak malaaka yi mu ñëw fekkee seedab suñu borom la muy wane mooy kooku sut na doomu aadama yépp kon yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku miraaran wa tikraara malaaka yi malaaka yi sunu borom yi di sujuutal aadam alayhi salaam li ajli al ilm malaaka yi anbiu bi asma anbiuni bi asmai haulaa ñu ne laa ilma lana illa ma allamtana aadama anbiuhum bi asmaihim mu ni falamma anbaahum ba mu paree mu ni usjudu li aadam sujuutal lil aadam teraanga jooju ayu takrimatin aadam min sujudi al malaikati li aadam ban teraanga moo gën a rëy malaaka yi di sujuutal aadam alayhi salaam mbokk yi est-ce que xam nga ne xaj bu am xam-xam sax day am valeur da lay am valeur yow mi jàngu xaj bu am xam-xam allahu akbar sunu borom mi ngi wax ne mukallidina tuallimunahunna mimma allamakum allahu fa kulu mimma amsakna wadkuru sma allah sunu borom mu ne xaj xaj bu am xam-xam mu xam xam-xamu rëbb sunu borom mu ne bu jàppee bu ñëwee lekkal te moo ne beneen xaj moroomam su ñëwoon mu jàppum rëbb day xaram doo ko lekk lu tax parce que xaj bi liñ ko jàngal mooy am rëbb te rëbb ci xeeti xam-xam yi la kon orma gi ñu ko jox li ko ko may mooy xam-xam moo tax borom xam-xam yi ñu ni ah xaj bu am xam-xam sax ëpp na valeur moroomi rabam ba ñu may ko mu mën a jàpp jox ab julit mu lekk te la ko may mooy mu xel ni bii na tuallimunahunna da ngeen leen a jàngal ma allamakumullah mooy da ngeen jàngal rëbb te ma ne ko jàngal alquran jàngul falaq jàngul naas jàngul buxaari jàngul muslim rëbb la jàng waaye maadaama rëbb xam-xam la rek xam-xam boobu lañ ko ormale mu mu ay moromam ba léegi moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax ni malaaka yi dañuy tàllal laafu seeni laaf ci sàkku xam-xam bi ci jom bi subhaanallah xoolal tey nag ñun ñun ñun boo boo seetloo sunna ci tey ci salaf jóge ci xalaf toxal ba mu yegsi ci ñun kenn ku ci nekk ci ñun lan mooy sa wàccuwaay ca loolu lan nga ci liggéey tey daal pour ñu toog di naan ataaya moom mën nañoo jël temps bu bare bare bare bare bare def ko ci gis nga sànnante sànnante ay ay ay ay kii ay affaires yooyu seen portable par buntu mën nañ ci am deux heures de temps maanaam yenn image ak wala yenn soo ñu koy sànnante mën nañoo yàq suñu temps foofu yépp gis nga toog di waxtaane suñu biyeey àddina mën nañ cee yeddu ba ngoon jot taal ataaya moom ak di wax lu ñor lu ñor ban waxtu yi ñu yàq te fekk wallahi mbokk yi lu tedd mi ngi ñuy xaar loo xam ne moo li gën a rëy ci doomu aadama am gis nga benn borom xam-xam bu nekk ci aw xeet ah moo gën a rëy ci saytaane junni jaamukati yàlla yu fa nekk waxoon naa leen moo tax iblis alayhi laanatullah borom xam-xam rek la bañ parce que li muy yàq moom iblis borom xam-xam da koy jubbanti moo tax biñ ko laajee kan nga gën a bañ dafa tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf ku ca toog mu ne xanaa ab borom xam-xam ab borom xam-xam la gën a bañ li tax mu bañ ko mooy borom xam-xam day day leeral li muy leeral loolu moom mooy yàq yi muy yàq bu ko defee yoonam du bari ay mbooloo kon Abdullah ibn Abbas xabrul umma faqihul asr turjumaanul Qur'an imaamu tafsir mooy Abdullah ibni abbas ibni ammi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abbas di bàyyi ci yonent bi mooy bàyyam kon abdullah ibni abbas doomu bàyyi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ummul fadl ummul fadl al fadail lubabata bint al xaaris kon moom moo jur ummul fadl moo jur abdullah ibni abbas balaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay ci ñetti at ci la abdullah ibni abbas judd li may judd mi ngi tombeeg jamono jooju ñu ngi embargo jullit bi xam ngeen ne am na ñetti at yoo xam ni duñ leen embargo woon duñ leen jaay duñ jënd ci yéen duñ leen yedd duñ leen yenni duñ ñëw seen xew bu leen ñëw suñu xew ku ci lakk la suñu yoon néew ci ku ci ne ci problème faalewul la donte ñoo bokk ak yow deret mu metti lool jamono jooja ci la Abdullah ibn Abbas daal di jub moo tax bi yent bi faatu bi nga am fukki at ak ñett ndax xam ngeen ñetti at yooyu boo ko boolee fukk yi nga xam ne yonent bi gàddaay na ko mu nekk fukk ak ñett kon bi yonent bi faatu fekk na gone lool Abdullah ibn Abbas góor la woon goo xam ne li muy nekk nekk gone nag dafa jëloon jëmmi baayam baayam Abbas waxoon naa ne ko ci bind bi weesu fonkal la woon masha Allah mu njool ca kaw nga xam ni boo ko xool da ngay tëgg njool na am na yaram saaru na kon Abdullah ibn Abbas baayam la jëloon moo tax borom xam-xam dañuy wax ni noonu la meloon maanaam jëmmi baayam la dafa njooloon lool am saar rafet lool am hayba moo tax borom xam-xam yeeg ndongo yeeg magi saxaaba yeeg yépp ko ormaaloon ndax dafa amoon li ñuy tuddee hayba hayba mooy ak wegeel nga xam ne yow boo gisee nit ki sax da nga koy rus te doo xam sax lu tax nga rus ko bi baayam gàddaayee ànd ak yaayam ñu jóge Makka dem Madina fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam foofu nag fa la toog ab diir bu gàtt rek bëriwut yàggut yonent bi faatu alayhi salaatu wasalaam kon nekkut ak yonent bi ab diir bu yàgg ndax xam ngeen ni bi mu juddoo ci Makka yéex naa gàddaay yonent bi gàddaay na lu yàgg moom mu nekk Makka jàngut defut dara waaye bi mu dikkee nekk ak yonent bi bal sax am na ci borom xam-xam yi ci ahlu siyar ñoo xam ne dañuy wax ni maanaam nekkul ak yonent bi lu yàgg sallallahu alayhi wa sallam maanaam daanaka boo dee seetlu ay ñaari at ak nangam ci la nekk ak yonent bi yonent bi faatu alayhi salatu wasalaam waaye nag jot naa am ci ay njëriñ yoo xam ne jëriñu na ko ci yonent bi yonent bi saa sallam waxoon naa ci bind bi weesu dafa bégaloon baayam ak yaayam ci juddu ko Abdullah ibn Abbas ndax yonent bi génn na comme ni ma leen ko waxee woon ci bind bi weesu Ummul Fadl nee na maa ngi toll diggante ma romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne yaa Ummul Fadl ma ne ko naam labbayk mu ne ko innaka xaamilun bi gulaam kii nga ëmb nii ab xale bu góor lay doon mu ne ko ah yow de waa maag Madina gis nga ñu ngi ñuy gaafal naan ne yéen de bu ngeen dikkee bu tax ay jigéen rek ngeen fiy jur xam nga léeg-léeg nit ñi seen gaaf yeeg seen jabar yi ñuy faral di def mën nañoo sukkandiku di wax la ñuy wax mu ne man de loolu ma ci jaaxal moo tax man foogoon naa ni jigéen laa nar a jur mu ne ko li ma la wax mooy lii am insha allah mooy doom ju góor ngay am te it nag doom juggu kéemtaane ngay am bi loolu amee nee na bi mu juddoo ma daal di ko indi yonent bi mu toqantal ko toqantal mooy yëkkati tàngar ma jox ko ko loolu la yàggoon def alayhi salatu wasalaam nga xam ne wax na ci sunna saxaaba yi daan indi seeni doom mu jël tàngar ma yëy ko mu ànd ak ay taflitam mu fexal ko ki nga xamante ni mooy liir bi nee na bi loolu amee yonent bi daal di muuñ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di koy tuddee abdullah muy abdullah ibn abbas moo loolu moo indi tur wi ndax yonent bi moo ko tuddee kon Abdullah ibn Abbas mi ngi noonu bi mu ñëwee Madina ak sàkku yoon xam-xamam ak gañe gu mu gañe ci ñaanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga mbokk yi nit ki way juram ñaanal ko wala sëriñam ñaanal ko lu wéyandu lu def jeexintal te nit ñi xamuñu ko gis nga doomu aadama bi war naa fexe ba way juram ñaanal ko wa illaa nitu yàlla ku baax koo xam ne ku ragal yàlla ay ñaanam mën naa bañ a nangu mu ñaanal la wa illaa sa sëriñ bi lay jàngal ñaanal la aka def jeexintal gis nga yooyu dañ koy xeeb xeebu wut de nun ndongo yi mun ko xeeb de surga ba ca tool ba sax laa surga ba ca tool ba njaati jéem bu kontaanee ci moom ñaanal ko day nangu jigéen ca ca kër ga bu ca këram kontaanee ci moom mu ñaanal ko day nangu fa kay fa kon kii sàkku xam-xam di jàng alquran ak sunna kooku bu ko sëriñ bi ñaanal laa sakka fii daalika dafay nangu waaye est ce que def nga lu kontaan loolu sëriñ bi bam ñaanal la martaba jooju est ce que liggéey nga ko du du la ko liggéeyal de yaa koy liggéey moom mu ñaanal la kon Abdullah ibn Abbas nee na yonent saa sallam benn bis daf maa jël taf ma ci dëndam sallallahu alayhi wa sallam lim ma tafee ci dëndam mu ni allahumma allimhu alxikma yàlla ki yàlla nga ko may xam-xam allahu akbar muy ñaan rëy loolu loolu ñaan li lii la olof bi tuddee ñaanu bu yéene nag ñaanu bu yéene beneen bi waaye dañuy masaxa nabi saa sallam rasi wa daali bil xikma sama bopp bi la raay daal di may ñaanal xikma beneen bi waaye abdullah ibn abbas nee na benn bis dama nekkoon ci néegu maymuna di sama yaay bu ndaw nee na bi guddi jotee ma daal di jël satala gi def ci ndox bi ma ci defee ndox teg ko ci bunt bi xam naa waajal kuy jàpp jubbanti daal li lekk ab sot teg ca kaw sa talaba nee na Maymuna yonent bi saa sallam daal di ñëw bi mu ñëwee mu daal di laaj waaw kan moo def lii maanaam wax dëgg yàlla sëriñ bi war a génn ñu tegal ko saxala gi fii tegal ko dàll yi daal di koy yombalal mbir yi ku toll ni yonente bi alayhi salatu wasalaam mu kontaan lool mu ni ko def jëf ji maymuna ni ko abdullah ibn abbas bi moo ko def xale bi ne ci biir mu ni allahuma faqihu fi diini wa allimhu tawil kon loolu moo indi xadis boobu daal di kontaan nga xam ngeen ni kaab al aslami defoon na ko bàyyi ba guddi jot mu lekkal yonent bi sotti defaral ko dàll yi defaral ko saxala bi gis nga daal di teg ndeysaan yonent bi génn waa ku def lii ñu ne ko waa ji de moo ko def mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la ay bu doon ñu la bu doon ñu ne sa way di nga di nga dina lima lima lim loo xam ne sa way xajul ci kaay 32 pages ci suñuy tey àddina yi waaye mu ne ko asaluka murafaqataka fil janna man daal damaa bëgg boo duggee àjjana daal ma ànd ak yow mu mel ni affaire bi dafa riche yonent bi parce que gone bu xonk toy nga xam ne yow sa adduna sa avancement sa am kër dëkk jabar yooyu war a nekk sa xel ni yéen ci bi ni ko awa gayra zaalik yow amoo beneen soxla bu dul mu ni ko huwa zaaka li ma am ci soxla yi adduna ak àllaaxira yépp lii la allahu akbar lii dafay wane uluwu himmati saxaaba mooy ñoom seeni njëbét am teraanga ju bàyyi ju nekk yàlla jëm àllaaxira moo leen gënal mën a am noonu yéen saa salaam ni ko aayinni ala nafsika bi kasrati sujud mooy na nga dimbalee wala na nga dimbalee sa bopp di bari looy sujjuut kon loolu la ko dénk sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas nee na benn bis beneen riwaaya muy dama fanaan ci sama néeg tàntaam di Maymuuna nee na bi mu fanaanee ci néeg tàntaam yaayam bu ndaw bi mu fanaanee ci néeg yaayam bu ndaw di umm Maymuuna nee na ma bàyyi ba guddi ma seen yonent bi jub di julli ma jub di julli ànd ak moom nee na bi ma jugee ma dem bay waaj a julli am yàgg ma daal di rocceeku ndànk dem tool bi bi ma rocceekoo dem tool bi yonent bi daal di pare julli ni ko waaw yow lan moo tax nga ñëw ba taxaw ci man nga daal rocceeku dem sa yoon mu ne ko yow ak ni nga màggee ak teraanga bi la yàlla teral may ñëw di teg sama tànk ci sa tegg naan damay tolloog yow loolu daal rus naa ko yonent bi daal di yéemu ci tontu boobu daal di koy woo ni ma ko wooyee mu daal di ñëw mu daal di koy ñaanal yàlla dolli ko xam-xam ak xikma nee na fajar googa ca la yonent bi tëddoon di nelaw ba ma dégg sax mu mel ni kuy xaran bilaal dikk woo ko mu jug julli te jàpp wut loolu moo lay wan xadis ba yéen sa sa doon wax ñun yonent yi sunu bët yi mën na gëmm nga defee ne ñu ngay nelaw fekk sunu xol yi nelawut moo tax loola moom moo ko jagoo sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn abbas yàlla def na yéen defal ay tawfiq nag gis nga bokk na ci tawfiq yi ko yàlla defal mooy gis na jibril alayhi salaam ak ñaari bëtam benn bis yonente bi daa taxaw ak abbas bi mu taxawee ak abbas di waxal moom fekk abdullah ibne abbas mi ngi ci seen ginnaaw abdullah ibne abbas waroon a xool ñoom ñaar seen waxtaani mu gestu am lu muy xool bi mu gestoo am lu muy xool yonente bi daal di gestu gis ko bi yonente bi paree Abdullah ibn Abbas daal ni ko waaw yow li nga doon xool Abd Abbas ni ko waaw li nga doon xool lan la mu ne ko man kat damaa am ku ma gis ku taxawoon fii yonent bi ne ko gis nga ko mu ne ko gis naa ko sama ñaari bët yi mu ne ko kooku mooy Jibril loolu loolu man xabatun azima ci lii may wax ni du du du mat ne gone la kon loolu man xabat lii la moo tax gis nga nag lii da nga ci daal di xamee ni gis nga fadl al fadlu daal min Allah fadl yàlla moo ko yore subhanahu wa taala gis nga doomu aadama yi ni ñu wuutee wallahu faddala baadakum ala baadin teemam mu ni fi rizq gis nga rawante ji doomu aadama yi rawante fawqa kulli di ilmin alim li an laa yaalama ahlu an laa yaqdiruna ala shay min fadlillah wa anna alfadla bi yadillah yutii man yasha dalika fadlullah yutii man yasha xanaa ñu ñaan yàlla subhana taala boole ñu si dem soob ba may leen xéwal yooyu kon Abdullah ibn Abbas mi ngi noonu ndénkaane bu rëy bu ko yonente bi dénkoon alayhi salatu wasalaam boo xam ni danañu jariñ ñun ndongo yi bi mu nekkee gone ndénkaan bi bokk na ci mooy yonente bi salaa salaam ku bëggoon Abdullah ibn Abbas la ndax Abdullah ibn Abbas dafa teel a bëgg xam-xam la dafa teel a bëgg xam-xam moo tax gis nga yu mel nii tey maanaam bu ñu koy déglu buñ ci xeeb suñu bopp gis nga imaam yi nga xam yëpp yëpp cig ndawee lan jaar ba xëy mel niñ mel jëlal ko mel ni Sufyaan Sawri nga xam ne yaayam moo ko doon wax ndoom sama mu ni naam xëy nga jàngi mu ni ko waaw waaye ndeysaan boobu daa fekk yaayam mel noonu ak umul fadl ak yaay mel ni umul fadl dem nga jàngi tey mu ne waaw mu ne ko loo jàng mu ne ko nangam ak nangam mu ne ko mbaa jëfe nga ko mu ne fekk mu ne ko gis nga booy jàng te doo jëfe dara du la ko jëriñ lépp ngay fàttewaat waaye góorgóorlu loo jàng di ko jëfe ci ëllëg te mu ne ko ndoom sama mu ne naam mu ne ko mbaa sa xel mi nekk gu ci li ne ci xel xale yu góor yi mooy wuti xaalis mu ne ko sa xel bu mu nekk ci wuti xaalis xam-xam rek laa bëgg ci yow xam-xam rek laa bëgg ci yow mu ne ko man sa yaay dinaay ràbb di la jaayal di di la di di la di jaay di la jox ngay dundee xam na kenn ci ñoom maa fàtte turam fii ma toog ngay sànn moom moo gën a yéeme sax moom yaayam dafa dafa dafa tukki jàngi bi mu ñibbisee yaayam mu ne ko diw bul àndateeg moom diw bul àndateeg moom diw bul àndateeg moom diw jàpp ko xarit la diw jàpp ko xarit la diw jàpp ko xarit la mu ne ko yaay yow loo def ba xam kuy xarit ak ku def noonu mu ne ko diw ak diw ak diw ak diw ak diw jaar nañ ci ay yoon nag ah sa waay kay mënoon naa toog fii lu muy jëm di sori ci jàngi nangam nangam mu ne te ñii ñoom kenn ku ci ñëw rek daf naa ma sa doom bi ñaanal ko de lu waay wuti ci àddina xam-xama ko gën mu ne ma xam ne kon ñii ñooy ay soppe ñee ay noonu lan allahu akbar xoolal xoolal yooyu yaay ku ko amoon loolu waxati Ahmad ibn Hanbal yaayam moo doon jàpp ci loxoom ba muy nekk gone di ko yóbbu ci xalqam muy tànku ji xam-xam defe naa gisoon ngeen xisab Hisham ibn Ammar xam ba mu ñëwee ci imaamu Malik imaamu Daaral Hijra ndax baayam dafa jaay këram jox ko subhanallah mu dem jàngi mu ñëw di saraax biir na néeg Malik te nuyëwul Malik jàpp ko làpp ko ba tawlu ko mu yendoo jooy ba ngoon jot Malik laaj ko looy jooy mu ne ko nit sama bàyyi def ba ma jàng si boo ko xamoon doo ma dóor mu ne ko doon def mu ne ko këram gëm dëkkoon la jaay génni taxawaalu bi pour naa sàkku xam-xam bopp xool xoolu ñu ni fi dem xam-xam tolloo Malik loolu dafa daw yaramam mu ne ko waxal loo bëgg ma defal la mu ne ko xanaa nga nettali ma ay xadis yi seen safa mu nettali ko ba àggal mu ne ko doyal nga mu ne ko dee lu des mu ne ko xanaa danga may dóoraat lu toll li ñu ma dóoroon nettali ma xadis yi toll ñooñu ñooñu lu ñu mënoon a am ci kaw suuf li leen ko gënal mooy xam-xam te ca saxaaba ya nag ba ci taabiuun yi subhanallah da ngay gis ñoo xam ne ay atu juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at ñu nekk ay boromi xam-xam la boromi xam-xam wala alquran ku ko mokkal nekk na borom xam-xam laa nag et it koo xamante ni à l'âge de dix-sept ans day commencé jàngale ibn hajar ibn taymiya ibn alqayim borom tullamul wusul amu ci kenn koo xam ni bi ngay am ñaar fukki at lu dul fekk na yaa ngi commencé jàngale di fatwa di def ay fatwa di jàngale Abdullah ibn Abbas nii kenn la ca ñooña balaa muy am ñaar fukki at commencé nay def fatwa bu Omar ibn Khattab ne wowal leen ma ña desoon ca waa Badar ma diisoo ñoom danaan wowaay leen man ko ne gële Abdullah ibn Abbas mu ñëw bokk ci diisoo bi loolu la wala bi naan xama yàpp mag xama nu mu doon nu mu ko waxee waxati nu ñu koy waxati di mbuus muñ sol mbuus muñ sol yàpp mag ah mbuusu xale muñ sol yàpp mag aka wax dëgg aka ñoo wax xolo ma wax dëgg foofu mooy da ngay nekk gone waaye pare ku mag nga moo tax benn borom xam-xam ni ngi nit li ab ndongo ci jamono yi paase yaakaar naa gis ngeen ko ci seen image yi lu mu wax dafa wax ju am solo mu ni ana akbaru minhu sinnan wa huwa yakbaru ni inda allahi bi ilmi allahu akbar mu ni xam naa ni man maa ko mag waaye gëm naa ni mooma mag mooma mag moo tax Abdoulaye Abbas Abbas boo ko musaana wax yaa ngi xam nga Abbas moo mag yonent bi Abbas boo ne ko yaa ngi yonente bi ko mag danaan maa ko njëkk a judd waaye moo mag maa ko njëkk a judd mooy yaa ko mag kay waaye maa ko njëkk a judd bu dee ci ay at waaye moo mag parce que yonente yàlla la alayhi salaatu wasalaam kon gis nga loolu li muy wane rek mooy kenn ku ci nekk ci ñun mbir mi ngëm-ngëm la toll wutkatu alal yi leen alal jaral da ngay gis ko ku tuuti koo xam ni sa way ay gis ñee ci boppam da ngay yaakaar ni kii mag mu dem la ba dëkk parce que tey maatatin himam bébétukaay yi moo dee moo faatu ndax doomu aadama bu yëgoon ni yéen a wut ci boppam lu gën a rëy xam-xam kooku amul lu ñu koy gaaral ci kaw suuf loo xam ni fees na bëtam lu dul xam-xam xoolal koo xam ni yow boo tëddoon di nelaw sax ñu ngi lay bindal tiyaaba borom xam-xam yi xam ngeen loolu nelaw laax nelaw bu tëddoon di nelaw ñu ngi koy poyanteel ay tiyaaba tëdd di nelaw laax tëdd di nelaw rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla ak ay malaakaam ba jën ya nekk ca biir géej allahu akbar wa ma adrakum ma xitaanul baxar mbokk yi ñaata ton ñaata ton par jour la bato yi génn ci géej gi ci jëm ñaata junniy ton lan fay bàyyi suñ pare yow kay xanaa yow yow yow day sa affaire daal nar a baax rek yow sa affaire daal nar a baax moo tax Iblis du la bàyyi moo tax barki dem wax naa ko sunu mbokk yi gis nga ñun ñii di góorgóorlu jàng alquran ñun la seytaane gën a soxla xam nga lu tax parce que nit ñi amee tiyaaba daa gaaw dafa gaaw ak yow benn paas boobu boo ko jàngee daanaka nga bëgg am fii taway mille tiyaaba xaw tuuti tam benn page parce que arab bu nekk ñu bind la fukk fukki tiyaaba arab bu nekk fukki tiyaaba alif laam miim fanweeri tiyaaba jaalikal kitaab nga bëgg am cent soixante soixante dix tiyaaba benn page boobu boo ko jàngee nga bëgg am mille tiyaaba fi nga toog ni ngay amee tiyaaba dafa gaaw kii arrangé wu ko moo tax fexe mu mën nag dana ko def bu dee ci gars yi dañu ci dara ji neexut ak sa bàyyi ko dàqal di la di la di la kii nga dem yaa koy yëg bu dee ci mag mi day ñëw fexe ba bu la fi mënta jëlee xam nga la day fexe ba doo sellal nag moom day fexe ba doo sellal nag moom di nga jàng de ngay jàng ka jàngale mu fexe ba doo sellal parce que li mu bëgg mooy nga yàqale parce que ni nga amee tiyaaba arrangé wu ko moo tax gis nga zal zallatul aalimi zallatul aalam sarqi sax borom xam-xam ni bépp daanu dafa mel ni adduna bi yëpp a xalangu rek ànd ak moom lu tax parce que iblis kooku ab jëllal da koy neex moo tax day ñëw ci borom xam-xam yi dugal ci seen diggante ay iñaan ay soxor ay loo yaakaar ni war naa mën a yàq rek dana ko def parce que yow arrangé woo ko moo tax yow la gën a bañ loolu bee nga bàyyi ko xel saa boo xëyee del musulu ci moom gis nga nag loolu bu ko nit ci yëgee dafa yëg ni kon teraanga bi gën a rëy mooy xam-xam yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna ku soobu aw yoon di sàkku xam-xam borom bi da koy yombalal yoon wu koy jëme aljanna allahu akbar fii ndax yow du la neex càllale gi jot li wax yonent bi nga bokk ca gis nga même boo nekkul solo ko tam xadis benn xadis bi nga jàng ba mu mokk nga dem jottali ko nga xam ni wir na ni diw moom yaa tax mu yegg ci moom bu ñuy lim càllale nga yegg ci yonent bi yow dugg nga ca yow parce que diw ba mu jógee ca yonent bi agsiwul ci moom yow yaa fexe ba mu yegg ci moom kon chaîne bi doon dem ca yonent sasalam yow bokk nga ci yow allahu akbar loolu loolu ngëneel yu rëy rëy rëy la ngëneel yu rëy la moo tax suñu borom di wax yarfai allahu alladina amanu minkum alladina utal ilma darajat yàlla day yëkkati ñi gëm yàlla daraja ba pare yëkkati ñi sàkku xam-xam daraja ndax ñi gëm yàlla bokkul ci ñi sàkku xam-xam bokkul ci ñi gëm yàlla ahan kay waaye bu ñu defee premier tour ba ngëm yàlla ak ngëm yàlla ni mu ko waree ngëm yàlla génn bu ñu defaatee deuxième tour nag ñëpp dañuy wadd ñu xam ñoo yéen kon laa sakka ni loolu benn jëmm di la jéggalul ñaata junni junni ñaata junni ton ci ay jëm ñoo lay jéggalul yàlla par jour yàlla jéggal ko yàlla baal ko te yow fekk na amaana sax yaa ngi sa business yi bopp yow kon loolu bu ko nit ki yégee loolu rek courage la bu war a mën a tax mu góorgóorlu sàkku xam-xam yonent bi man yuridi allahu bihi xayran yufaqihu fi diin bu yàlla nam ci yow yiw daf lay dégloo diine gis nga lii la yaay yi xamoon na comme umul fadl ñoom gis nga moo tax tey rek la ñuy jur ay doom di xalaat nañ leen wutal métier nañ leen jàngal yi nañ leen jàngalale waaye gis nga bu njëkk amul ku daan xalaat am doom lu ko gën ko yóbbu ca kutaab ya bu def kutaab lañ doon wax comme façon yi am tey internat du woon loolu déedéet sëriñ bi la doon jàngale toog yore ay ndongo yu dul jeex ndongo yi mën nañoo mat junniy ndongo junni am na ci sëriñ boo xamante ni moom bu daan jàngale ndongo yi dañoo bari ba mbaam lay war ndax fa rang ba tàmbalee balaa mu yegg tey mënoo ko dox mbaam lay war ku mu jox bind jox kële bind jox kële bind noonu la ko yelloo ba ngoon jot wallahi mbokk yi loolu ñu doon jàngale sonn nañ lool waaye ndongo yi ñàkkoon nañ moyen buñ jàngee xoolal tey mbiri ni mu yombee moo tax nag mu jaatil baraka saa bu for baree tëgg day jafe léegi affaire bi daa ñëw ba suñu xarantay tànk nay tànk léeg-léeg nga gis koo xam ne sax ci téléphone lay jàngee léeg-léeg nga gis waa joo xamante ni sa waay moom njàng mi capté réefale daanaka daal mi ngi noonu moo tax it yàlla soo talaa xañ ni barke bi waaye bépp nit boo xam ne ku gëm yàlla la mu dogu ci moom gëm ni man damaa war a am xam-xam soobu ci yoon wi man jadda wajat man jadda wajat ñaari baat yu nuroo la arab yi nee nañ man jadda ku sonn wajada da ngay am defe naa nitale woon naa leen ko waa ji jàngi woon ndeysaan xel mi ndeysaan naqari mu sonn ci àll ba ñibbi si ñëw ci tindab teen ba ca buntu dëkk ba fekk buum gi di riisu ci teen bi mu ni waaw lii lu ko fi def ñu ni buum gee ko def mu ni buum mën naa dagg miir bi nii ñu ni waaw waaw mu ni lu mu def ba dagg ko ñu ne ko yàgg fee jaar mu ni ah te gëm buum moo yàgg jaar fii ba man koo def nii xaaral ma dem yàgg ca la ma nekkoon am na mbokk mu ma nekk ni benn waay boo xam ni dix-sept ans wala dix-huit ans def na ko kokki pour bëgg a mokk rek alxuraan fukki at ak juróom-ñett kooku ponkal mu ko génne ci dundam lu muy defe ngir nekk ci quran kese waaye ak aka mokk du kese de nit ñee wax di kese waaye alquran dama ni ku ko mokkal sunu borom xoolal téere bi la yàlla jox mooy téereem bi mu gën a fonk moom sunu borom day lamoo nekk gi nekk sa dënd bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilm sunu borom ay leer la waaye maa ngi ko denc ci dëndu gaay yi sàkku xam-xam allahu akbar mbokk yi xoolal waxi yàlla ni mu màggeeg ni mu fooree sunu borom amul dencukaay boo xamante ni nit ne na ko ni moom la gën a wóolu denc ko ca baraw dënd borom xam-xam moo tax nag alquran mooy al nuqtatu l ula fii suduri alladina utul ilm ñi sàkku xam-xam quran war na jiitu kon abdullah ibn abbas ci sababu ñaanug yonent bi alayhi salatu wasalaam ci la amee loolu moo tax yonent bi doon ko dénk benn bis ni ko abdullah ibn abbas mu ne ko yaa gulaam inni uallimaka kalimat uallimuka kalimat dama lay jàngal ay baat mu ne ko ihfadu llaha yaxfaduka Abdullah ibn Abbas mu ni naam mu ni ko yow xam nga ni gone nga de waaw parce que gone la ndax booba amagul sax quinze ans fukki at ak juróom mu ni ko na nga fexe ba foo mën a nekk del bàyyi xel yàlla yàlla moo la bind génn la ci sa biiru yaay dina jox ngay lekk boo lekkee mooy reesal est ce que xam nga loolu mu ni waaw lii de xanaa day méngoog sunu bind bi baax ci Luqmaan ak doom ja mu ni ko del bàyyi xel yàlla di ko wattu foo mën toll sunu borom dana la wattu moom it te loolu defe naa ni njàngale yii waxatuma gone waaye mag ñi sax ñoo ko soxla fi mu ne nii beneen bi jëles mu ni ko ixfadu llaha tajidhu tujahak wattul yàlla nga di ko moytu ndi ko di ko bàyyi xel kon yàlla dina nekk sa kanam di la xàllal yoon yi benn problème doo ko am lépp suñu borom lay dimbali ndax bàyyi xel di ñu ko bàyyi xel mu ni ko ida saalta fasalillah mooy ñaan na nga ñaan yàlla na nga ñaan yàlla maanaam nit ki dafa war a gëm ñaan kenn rek moo am ku giijal ku giijal bari na lool kooku mooy sunu borom allahu akbar ba addina bi sot sot sottee ba tey ñaata mil ci milliardaire ci millionnaire yu fi mas a jaar te loola leen sunu borom jox wàññiwul ca am amam ba lu toll ni puso boo ko tàbbaloon ci ndox bu génnee toog fa muy waddal allahu akbar sunu borom ca loxoom lu tedd la ci la caabi magasin xéewal yi nekk wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baadin lirrijali nasibun mima kasabu wa linnisaai nasibun mima kasabna mu ni wasalu allaha min fadli ñaanal yàlla bul fi nekk naan jiw jiw jiw góor gi ñii jigéen ji nii loolu sa yoon nekku ci yow wasalu allaha min fadli ñaanal yàlla ci ngëneelam moo tax boo jaaxlee ñaan la ngay ñaan subhanahu wa taala muy wa ida staanta fastain billah booy sàkku ndimbal sàkk ko ci yàlla dëgg la doomu aadama dinañ ko dimbali ko ci lim man waaye lu mënut nag lu mel ni wér lu mel ni reesalu lekk ah yu mel noonu kooku yàlla rek moo ko man maye xam-xam yàlla rek moo ko man mu ne ko waalam na nga xam ni an al ummata law ijtamaat ala an yanfauka bi cheyin lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llah mu ne ko àddina bi yëpp bu ñu daje woon ngir bëgg laa dimbali ci mel ni mbir te fekk suñu borom subhanahu wa taala dogalul ni mbir moomu di nga ci amul ndimbal mu ne yàlla du la dimbali lu sotti gis nga doomu aadama yi mën nañu di njub ñun ñëpp dafa ay pexe pour dimbali la waaye gis nga su fekkee yàlla sottalu ko amaana ko boo amul sax da ngay dee doo ko fekkee sax parce que yàlla dogalu ko subhanahu wa taala mu ne ko niki noonu bu ñu dajee woon ñoom ñëpp pour bëgg laa lor ci mbir moo xam ne yàlla dogalu ko du sotti mu ne ko rufiat al aqlaamu xalima ya doon bind dogale yëkkatiku na wa jaffati suhuf papier yañ doon bind mbind ma it waaw na jeex na loolu ca bindul woon du ca am te loolu pas-pas bu wér la boo xam ne jullit bu nekk war na koo fas beneen riwaaya mu ne damaa àndoon ak yonent sa mu waral ma ci gileem gi wala mbaam gi yonent bi ni ma kaay ma xamal la baat yoo xam ne daf lay jariñ ma ni ko ohon kay mu ni wattul yàlla foo tollu yàlla dina la watt ah moo tax gis nga Yuusuf ba muy dem lu bàyyi ja wax dañu walla fallahu xayrun xaafida wa huwa arhamu rahimin kuy wax ci yàlla la gën xam naa ne xil yàlla dina ma delloo ci sama doom ndax wallahu xayrun xaafida moo tax booy dénk da ngay dénk yàlla subhanahu wa taala mu ne ko soo nekkee ci ay problème soo nekkee ci bànneex mu neex na nga góorgóorlu ci say jaamu yàlla su ko defee boo nekkee ci problème xëccali gi la yàlla yi xëccali day gaaw
ñun nag duñ def noonu ñun nag doomu aadama moom saa boo xamante nii rek ida massahu charru moom jazuwaan saa bu amee problème nga gis ko mu commencé gooy gooy lu tuñ yi commencé wow bët yi commencé xonk ah bu dawul julli ci jàkk ja ma ngay julli ci jàkk ja dawul yeewu fajar muy julli fajar parce que dafa jàq rek waaye saa bu yàlla indee xéewal yi ah fa in asaabahu xayrun itmaanna bi nga gis mu commencé jub-jublu nag ah wa in asaabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi xasira dunia wal axira fekk déedéet nit ki dafa war a góorgóorlu ci jamono ji nga xamante ni ay problème ñëwul su ko defee boo amee problème wàllu gi day daal di gaaw mu ne ko beneen bi ci des mooy sooy ñaan ñaanal yàlla booy dimbali ko dimbali ko suñu borom te nga xam ni doomu aadama yi mënuñu laa jariñ lu dul suñu borom dogal mënuñu laa tere tamit lu dul suñu borom dogal dogal mu ne ko waalam anna fi sabri ala ma takrahu xayran katira gis nga problème bu ñëwee fajee woo ko lu gën a rëy muy wax ko kii wax ko kële téléphoné kële jàmbat fii addina bi yëpp yëg ni da ngaa ne ci ay problème fooy jàmbat ida garratka baliyatun fasbir laha sabra alkarima fa innahu sabra alkarimi fa innahu bika aalamu dina problème bu ñëwee da ngay muñ am maîtrise nekk nit jiitoo ndax islam da koo digle istixaar ndax islam da koo digle boo sa pare pare nga ca ànd ak sa conscience nga dal rëf rëf di jëru ko ndax nit ñi ngay wax ñoom mënuñ ci def def yàlla yi dara looy def taskur rahima ila nabi la yarham yàlla mi la yërëm ngay dem di ko kalaame nit ñi nit ñi ñoom duñ la yërëm yàlla mi la yërëm bul ko kalaame bi déedéet moo tax mu ne taskur rahima ila nabi la yarham mu ne ko da nga xam ni kon muñ moo lay dimbale wa anna nasra maa sabr ndimbal moom mi ngi ànd ak muñ parce que ndimbal ñu ngi ko làq ci ginnaaw muñ mu ne wa anna al faraja maa al kar xitini balaa moo yegg daa fekk jafe-jafe ñëw mu ni wa anna ma al usri yusran na nga xam ni jafe-jafe bu nekk rek yombal dana ci topp kon ni ngi noonu abbas ibn al abbas muy baayam doon na ko dénk keroog bi nga xam ni faatu dikkal na ko pour wan la ni la ñoom dañ doon sol seen doom yi ay xeeti kàddu yoo xam ne day tax nit ci góorgóorlu keroog bi abbas tolla ci faatu te ni ko yey sama doom maa ngi lay dénk nga bëgg yàlla te di ko topp bëgg yonent bi te di ko topp ragalal yàlla subhaanahu wa taala te nga ragal di ko moy te nga xam ni saa boo góorgóorloo ci yoon wii ma la bàyyi bu dee dikkee doo ragal a dem allahu akbar bu dee dikkee doo ragal a dem waaye bu dee dikkee nit ki ragal rek daa fekk am na lu tax di ci topp mooy abdullah ibn abbas nag nan la xéree woon ci di sàkku xam-xam mbokk yi xam ngeen ni bu ñu abdullah ibn abbas ni xam-xam kenn mën naa toog fee mu ni ah non daf fekke woon jamono yonent bi jàng na ci yonent bi déedéet Abdullah ibn Abbas xaw tuuti kon nga ni jàngul ci yonent sasala bi yonent bi faatu mi ngi am fukki at ak ñett kooku tollagut fu muy xamee dara fan la xamee dara ci at dogub boppam pastéef bi maanaam maa ngi bañ rek kenn jug mu jàpp ne yonent bee ko ñaanal wala umul fadl mooy yaayam wala daa fekkee woon jamonoy saxaaba yi moo tax déedéet gis nga yàlla nag du la toggalu ceeb de déedéet comme ni ko wolof waxee du la toggal ceeb mukk li nga man du la ko defal mukk da ngay dem nga liggéey nga dugal sa poos fayeeku boo pare jox sa soxna mu dem marché mu togg nga jënd gaas mu xaw caa sonn nga nga yaraate sonn ca yàq ko gis nga boo yekkoon saa ci sa tibboo sa loxo lekk doo rek yàlla du la defal mukk li nga man waaye gis ko lekkee nag ba mu dugg ci biir gémmiñ nga ne du ma sàqami du ma jàllale du sotti de ba mu demee ba yegg ci biir bi nga xam ne sa loxo fu mu ne mën a sa yegg sa paxe mënatu ta yegg xamoo sax fu mu jaar ci biir bi suñu borom daal lay defal la nga mënut gis nga dogu dogu mën naa def loo nit ki lu ne wallahi mbokk yi da ngay yëkkat benn mbokk mu yàgg rek mu dogu rek sa waay ci jàng su da ngay jékki rek gis ko sa waay ca kanam muy daw fekk mbir mi dogu la moo tax ma ne leen ngëm yàlla ak dogoog ñëpp yoo bokk benn àtte mën naa def loo nit lu ne Abdullah ibn Abbas mu ngi nettali nee na bi yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa sallam damaa mel ni ku am sawarte nag léegi ci sàkku xam-xam ma ñëw ci sama benn xarit ci wàllu ansaar ni ko léegi damaa bëgg nga ñëw ñu dem di sàkku ci xam-xam ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji nii ah waaye yow saaba yonente bi nekk di ay borom xam-xam ñun lu ñuy sàkku xam-xam doye surtout yow mi nga xam ne doo bàyyi yonente bi nga yow koo dem këram mu teg la ci kaw fëtëreem ndax màggal xoolal rek xoolal yooyu wax rek xam nga yooyu bu ñu la ko waxee da ngay daal di mooy mooy doomi sëriñ bi rek di way sa baay bu ko defee nga commencé nooyal loxo commencé soli dara gis nga kaala gi bis bu njëkkee kii musiba xam na loolu la mag ñi daan wax mag ñi boo nekkee ko ne nga njëkk kaala ni ko paaj fii ñu ne déet wàcceel ci ndigg li kaala fii lay njëkk da nga koy takk ci ndigg li bu ko defee fii di ñaq ngir boo ko tekkee man koo fompee fii mu muur ci kawam waaye teel a tegum kaala rek te way amul ñaq amul yëngatu amul dara ah torox rek moo tax amul kenn torox rek torox ci jëfi adduna yi waaye torox ci ñàkk xam-xam tamit nee na waa ji mu daal di may bàyyi ma commencé sàkku xam-xam allahu akbar gis na abdullah ibn abbas day dégg ñu ni zayd ibn saabit ma nga fële mu daal di ñëw kër zayd ci misaal dégg ni usaama nga fële mu ñëw kër usaama dégg ni diw nga fële ubay ma nga fële nee na dama daal ñëw kër nit fekk bi may ñëw damaa naaje ma egg ci waxtu digg ba cëg ne ana ubay ñu ni ma ubay day nelaw abdullah ibn abbas nee na wóor na ma ni suñ ñi ko woon doomu bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi nekk muy dana dagg ay nelawam ngir man waaye bëgguma loolu nee na bëgguma loolu lu tax su defee loolu day yomb ci man ba mu ëpp allahu akbar ñun de ndeysaan xam naa ni baraka moom da dañ koy dégg rek ñu di ko nettali rek mais damay toog ci buntu néegam léeg-léeg mu nekk ngelaw mu ni damay mujj sakk sama nopp yi ndax ni muy feeseek ngelaw poussière bi ma toog ci buntu këram ci naaj bi mu ne bu yeewoo ci buntam ba séen ma day tiit i doo bàyyi yonent bi sax yoo def fi muy damaa ñëwoon pour sàkku ci xam-xam lu tax yeewoo ma mu ne ko damaa bëgg mu barkeel moo tax ma bàyyi ba ngay nelaw ba nelaw yu doy mais daf may jël dugal ma ci biir néegam ma laaj ko ba doyal mu bàyyi na ma dem ubay génn nay dem abdullah ibn abbas jël gileem gi di ko ko ommatal benn waay mu ne ko waay yow sa askan wi nga bokk ñun seet dee ngay womma ci gileem mu ne ko hakada nafaalu bi ulamaina nii la ñu digal ñu defal ko sunuy boromi xam-xam ngir sàkku ci ñoom xam-xam gis nga nee na noonu laa doon def rek muhaajiroon yeeg lansaar yeeg surtout nag kaab yent moo ko ñaanal mu dégg alquran waaye bu yaakaar ni mbir mi ay mbiri sol la de illahi loolu ay kóola rek ay ay nax la de ay diw dañ koo sol amul kenn ku ñuy sol xaalis kenn du ko sol kenn da nga koy liggéey doo koy am te li ci ama ko si néew nga mën koo doon sax amul ci xam-xam xam-xam kenn du ko doon da nga koy jàng dëgg la yent bi ñaanal na ko mu dégg waaye teewul ubay nga xam ne bokkoon ci gën a mën alquran yonent bi julli na gàtt mu geesu xanaa ubay ne woo fi mu ne ahan kay mu ne ko lu tax gàgganti woo ma ana ña ca des ba yonent bi tudd ubay dam lay wane mooy kon amoon na alquran woo na ubay ba mu ñëw mu ni ko ubay mu ni ko naam mu ni ko suñu borom nee na naa la jàngal lam yakuni alladina kafaru nga dégg allahu akbar mag mu doy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo sempalab saxaaba rek nan ko kaay ma jàngal la yàllaa ma ko digal ubay ni ko sama tur la yàlla tudd mu ni ko waaw ubay la wax rek mu bënn ba di jooy mu ni yàlla tudd na sama tur maanaam jëm ni yàlla daa waxuma la kaay ma jàngala waaye jëm ni yàlla tudd na turam rek loolu moom moo ko moo tax mbégte léeg-léeg dana jooyloo nit nag gis nga ko mi ngi noonu kon nee na noonu laa doon def nee na mel n masala dana ñëw ma topp saxaaba yenente bi benn par benn di leen ko laaj di leen ko laaj ba dekk ci ab fóore ci masala moom nee na noonu laa doon def bu ko defee Omar ibn al-Khattab da ko doon wax al fatal kahul jeune bu màgget bi xale bu màgget bi xale bu màgget bi maanaam yow xale nga waaye ak màgget nga am na sunu benn borom xam-xam bu mag xafidahullah wa raah wa an jami al ulama saalim gay bu canaba dañ ko mos a ziyaare ji mu wax wax ju ma yéen joo xam ni boo deful ak seetlu sax doo ko xam benn mbokk miñ tooga ci jotaay bi mu ni ko yaa saaba cheikh yow jeune bu màgget bi mu ni ko déedéet da nga may wax yaa ya ya yaa mu ni ko yaa saaba sayx jeune bu màgget mu ni ko déedéet da nga may wax yaa sayx saab muy màgget ji wëlbatiku nekk jeune ma ma ni waaw kii li muy wax ban sens la am waaye effectivement parce que màgget maanaam jeune bi nekk màgget nee na déedéet màgget ji ba lu wëlbatiku nekkaat jeune ngir def li ndaw ñiy def ci daaw bi loolu la bëgg moom subhaanallah kon xoolal yëg-yëg boobu màggat moo xam ne dem na ba mënta dox sax bu baax muy déedéet bu ko kenn wax jeune bu màgget bi lañ ko wax màgget ji wëlbati ku nekkaat jeune parce que daa bëgg a def li gone yi def kon yëg-yëg yi maanaam kenn te laay himan yi fu mu toll rek nit ki foofu lay toll moo tax Abdullah ibn Abbas kon ni la doon sàkkoo xam-xam ba dem ba nekk fóore ci fóore xeet bi kenn ci salaf nee na abdullah ibne abbas benn riwaay dane suratul baqara benn bi suratul nuur mu ni tafsir na ko benn bi tafsir boo xam ne gin naa ci yàlla yéefar yi buñ ko déglu woon danañ tuub dugg ci lislaam ndax kéemtaane suñu borom yàlla nag daf ko defaloon leer ci tafsirul quran ndax addina bi yépp dëppoo nañ ci ne abdullah ibne abbas moo dàq tafsir al quran kon lii bu ñu ko déggee dafay wane maanaam du mbir moo xam ne mënta nekkati la ahanka yi ñu ngi mën a nekk ba tey olof yi dañuy wax ne la fi newoon jógu fi waaye lu xew ñu ko def newoon la fi nekku loolu rek la la fi newoon jógu fi de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo joxe garanti gu lay wan ni ba fii mu toll yii mën naa am ñaari mbir ngi ni ma di la ko wax yonent bi nee na ci benn xadiis gis nga lislaam jii jamono bu nekk rek ñu gën a wóor tey ay boromi xam-xam ñoom la ko yàlla dénk ñoo koy jàllale te loolu day continuer ba yomal xiyaama beneen xadis mu ni téeméer bopp téeméeri at bu nekk yàlla dana yabal ku bees taq kuy ñëw beesalaat diini ji ba mu de maanaam daal beesalaat moom wane sunna moom la ñu tuddee al mujaddid maanaam bopp téeméeri at yu nekk al imaamu suyuti taarif na ci benn téere tuddee ko al mujaddiduun tàmbalee ko ca saxaaba ya te abu hurayra ñoom ba yegg ci jamonoom kon loolu lim lay wan mooy luñ mën a xam la on kay mu jënd nañ koy xam jamono bu nekk jamono bi ñu toll kay fii ñu toll ñun dañuy wax kan mooy mu jënd bi nga xam ngeen Cheikh Albani ak Ibn Baz bi ñuy dund ñoom ñaar kenn ku ci nekk ñu ngi la koy jiiñ allahu akbar suñ mosaan a daje ñoom dañ koy jiiñante te xoolal day saan mbokk yi Ibn Baz faatu na ana su ko nar a doon Cheikhul Albani kadalika ana su ko nar a doon te ñëpp wala ñëpp dañu amoon yéene benn ndongo Cheikh Albani déglu naa ko mu ni damaa ànd ak Cheikhul Albani ba ci digg àll bi ma laaj ko ni ko yow boo faatu woon ak kéem ñi nga mel ci kéemtaanu yàlla ci xadis ku la nar a remplacé mu reetaan ni ko uridukum xayran min al albani li may ñaan yàlla mooy bala maa faatu ma bàyyi ñu gën albani loolu mooy yéene xam-xam ibni Baas biñ ne ko ndax yow yaay mu jadd dani ma taxta adimi samaai rajulun aalamu bil xadisi min al albani addina bi fi mu toll asamaan si tiimut waa ju gën a xam xadis yonent bi Cheikh Albani ku ko gën a xam xadis yonent bi li ñu nekk kuy mujaddid bi mu ne bu nekkul Albani kan ngeen yaakaar la war a doon te mu ne Albani xoolal lisaan tawaabo Albani boo ko mosaan a laaj day wax ke maanaam xam-xam noonu la mel daje nañ ñoom ñett ci aj Mouhamadul Amin Shamqiti Cheikhul Albani ak Ibn Ousaymin ak Bun Baaz Cheikh Albani moo jiite woon jotaay bi bu masalam xadis ñëwee moom moo koy tontu bu masalam fiq ñëwee mu ni jox lañ ko Usaymin bu masalam Qur'an ñëwee mu ni jox lañ ko Muhammadul Amin Shanqiti bu masalam aqida ñëwee ñu jox ko Ibn Baz subhanallah xoolal xool kenn ku ci nekk li ñu doon joxee moroom moroom julli jot Ibn Baz mu ne ko yaa jiite jotaay bi waaye jugal nga jiite ñu nga jullil ñu ne yonent bi doon jullee ñu gis ñu jàng kon xoolal ji tawaa ko am mbokk yi nga xam ne haulaay xuulu hadihi al umma kuy xeet ci xam-xam nii la gis nga hakada ba tey nag am na ay nit yoo xam ne ñu ngi jaar ci seen i tànk yàlla suñu borom boole ñu sa ñooña wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain